suñ teewaay fii pour désemblement la quoi pour ñu dindi suuf si kaw tali bi Sénégal dañu bëgg mu avancer doon benn niveau boo xam ne niveau de travail lii dafa baax ci gox yi parce que agression bëri na si dëkk bi liggéey amul mais gars yi bëgg liggéey yëpp ñëw nañ ci lii ici y a pas de sous-métier loolu liggéey baax na da nga am loo tere dee say waajur rek waaw loolu ñu taxawoon jug si commune bi quoi defar commune ba mu baax. lii du association mën nañu projet la quoi reconnaître par l' mais commune de quoi. bu Mouhamed Djibril Wane euh, fii dañuy liggéey maam commune de Bisséry fépp la ñuy liggéey ASC yi fépp lu lu waay daal am xew la sax war a defar foofu ñu ñooy ñëw jàpp ci defar ba mu baax. seen population Bisséry dama leen gën a ñaar seen i ñoo fi nekk ak seen i yaay seen i jarbaat seen i ku ci mun a ñëw dugg nga liggéey nga ñëw liggéey moo gën toog ba pare liggéey bi tamit gars yi nañu bàyyi ñuy liggéey ñii di mer. parce que ñun ñëpp benn lañu sa doom ci nekkee doomu keneen nag ñëpp benn la lépp commune de Bisséry moo ñu ñor. waaw teral suñuy waajur teral leen ñoom tamit képp ku ci xajat yaa ma gën a xam waaw maa ngi remercié waa télé bi waa référence TV di leen seen liggéey rafet na trop waaw seen taxawaay baax na lii suñ koy continuer di def moom jeune nañu commencé gën a sawar di liggéey quoi. lu may njëkkee maa sant Djibril Wade ndax moo tax tey tamit ñu ñëpp ñuy xëy di liggéey ñëpp macha allah bu mu fi toogee ba tey dara ñaaw fi jël nañu góor ñi jigéen ñi ñëpp ñuy liggéey euh, fu ñu jugee sànq nii. dañ koy raxas ba pare est-ce que ko nettoyé ëllëg suñu paree ñu nettoyé ko waaye foofu nañ koy bàyyi est-ce que amee dégg ñun tamit ñoo ngi ñaan ñëpp dimbali ñu si est-ce que amee set ndax tamit fépp su setee suñu as suñu réew bi la daal na fépp su setee daal mooy loolu moo gën. ñoom ñuy nettoyé di yàq ñuy bale ñuy yàq loolu mënul nekk réew bi su suñu su setee ñu ñëpp la setal du ñun kase waaye tamit. ñu jàppale ñu si daal ñu jàppale ñu si lu wér ñuy bale muy set macha allah léegi kenn toogatul. maa ngi remercier tamit Djibril Wade bu ñu jël ñuy liggéey si maire bi ak tamit suñu patron Assane Assane Ndiaye ak ñoom Faat Bintu ñoom ñëpp tamit ñoo ngi leen di remercier bu baax a baax ndax tey tamit ñoom ñoo tax ñoom ñoo tax tey ñuy liggéey ñuy bale ñëpp ràññee ñu ndax tamit sàcc ñu fenn ñu. dañuy liggéey ndax tey tamit ku ñu romb ndax liggéey bi tamit ku romb dañuy ñee ndax xam ne lu tax mu ñuy ñee ndax tamit ñoo ñu dóor waar suñu neexoon ñu toog si bopp àngal yi ku romb may ñu fukki daram defuñu ko xale yi ndaw nañu suñu neexoon ñu ne carrément ñun ay jigéen nañu waruñoo def lii waaye lu ñu bëgg rek ñoom ñu dox si bu ñu amee Djibril Wade ba léegi daal macha allah dara ñaaw fi ñu ñaa ngi liggéey est-ce que de kenn toogatul kenn daal toogatul daal man dal ma ngi ñaan dal mu yag fi tawer yàlla ma yaat ko ndam inshallah allah si Seydina Muhammad